الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يقول المولى جل وعلا في محكم التنزيل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا mbokk yi ci yàlla ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu sunu xutba tey mooy al aqlu wa dawruhu fi nabzil xuraafaat al aqlu xel wa dawru ak rôle bi nga xam ne moom la xel war a taxaw war a jouer fii nabzil xuraafaat ci bàyyi ay caaxaan sànni ay def defe ay fekkeek ay yaakaar naak ay gis naa mbooloo mi nii lañ ko doon defee noonu lañ ko war a defee xel dafa war a jëriñ doomu aadama sunu borom subhanahu wa taala teral gi mu teral doomu aadama mu wax ci suratul isra aya 70 wa laqad karramna bani adam yàlla nee na dama teral nit ci ma def ko mu nekk doomu aadama nekkul rab te xam ngeen ne rab yi yàlla leen bind yàlla moo bind xeer inna allaha azza wa jal huwa alxaaliq alxaqiqi li kulli l asiya min basarin wa xajarin wa xaywanin wa jinnin wa kulli shay lakin allaha aza wa jal lama xalaqa alxalqa lam yajcal lahum mutasaawin bal faddala bacdan ala bacd sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu moom mooy ki bind amul kenn ku bind ku dul moom moo bind lépp xaaliq kulli shay lépp yàllaa ko bind amul lu fi kenn moom koo fi dégg mu ne maa moom dara may ko ñaari fan ñett mu dee keneen ñëw jël ko loolu kon moomu fi dara yàllaa moom lépp sunu borom moomu subhanahu wa taala moo bind mbindeef yi moo bind doj yi moo bind rab yi moo bind jinne yi moo bind lépp waaye loolu mu bind lépp daf ko gënalante ba ci yonent yi tilka rusul faddalna baadahum ala baad ba ci yonent yi sax yàlla daf leen a gënale ay martaba moo tax mbindee fi tamit bi leen yàlla gënee bindee mu def leen ay martaba ñu gënante waaye bal li yàlla def mooy doomu aadama moo ko gënal lépp lan moo tax doomu aadama moo gën bépp mbindeef bu dul moom sunu borom subhanahu wa taala bi mbindee mbindeef yi def cee tànn mbindeef mii di doomu aadama defal ko yoo xam ne defalu ko kenn may na ko xel bal arsala rusul ilayhi mu yónni sax ay yonent ci moom mu wàcce ci moom ay téere pour doomu aadama bi xam moom mooy kan xam mooy boppam xam moom mooy kan mais tey xel moomu yàlla may nu pour xel moomu ñu koy ràññee xam ngeen suñu xutba passé ci loolu la woon ci xel suñu xutba passé moo doon al aqlu xel wal ilm ak xam-xam lan lay jëriñ pour sànni ay xuraafaat tey daanaka booy ñooy ñaareelu tomb bi loolu la mooy xel moo war a dimbali nit pour ay mu war a ràññee lu mu war a def ak lu mu warta def ndeysaan yal na yàlla yërëm saxaaba bu mag bi ñu naan abu zarrin al ghafaari radiyallahu anhu wa arda as-sahaabil jalil ci moom Abu Zar xool leen ko li ko dugal ci lislaam mooy xelam zaata yowmin zahaba li yuqaddima marasima taat li sanami moom Aba Zar dafa jékki-jékki benn bis rek mu ne day dem jaamu ji yàllaam comme dafa amoon yàlla benn xërëm mu ne day dem jaamu ji yàlla ji wa baynama huwa kadalik wajada saalaban mutasalliq ala raasi sanami wa qad baala alayhi bi mu eggee ci yàlla ji li dafa fekk mbetteel ban mbetteel la fa fekk dafa fekk benn till loolu ñu naan saalab wala njàppaan mu fekk njàppaan mi yàlla till bi ci kaw ci kaw yàlla ji mu taxaw waaye lan mooy mbetteel till bi dafa saw ci kaw yàlla ji moom abu zar fa waqafa mutaajiban saaxiran mimma hadas mu jommi waaw man kii mooy sama yàlla maa ngi bàyyeekoo fu sori ma dox ñëw ba ci moom ma fekk ab till yéeg ci kawam waxuma sax mu yéeg ci waaye mu saw ci mu jommi mu commencé nag di laaj boppam waaw ndax lii yàlla la yàlla ju ñuy saw yàlla ju ay till def fawukaay di ci yéeg ndeysaan lan la ko loolu tontul xel mi bi mu xalaatee ci xel mi yàlla ju ñuy yéeg di saw ci kawam lan la ko jural mu ne rabbun yabuulu saalabaanu bi rasi laqad zalla man baalat alayhi saalibu falaw kaana rabban kaana yamnau nafsa fala xayra fi rabbin naathu lmatalibu baritu min alaslaami fi lardi kulliha wa amantu billahi alladi huwa alxaalibu mu ne yàlla joo xam ne ay njàppaan dañuy saw ci kawam ah rabbun yàlla boo xam ne yabuulu saalabaanu bi rasihi yàlla joo xam ne ay njàppaan dañuy saw ci kawam di saw ci bopp bi ah képp ku ay njàppaan di saw sa kaw yow torox nga yàlla ji ne kënga këngaaral mënul dara mu ne fakkat falaw kaana rabban kaana yamna'u nafsa bu doon yàlla la xanaa sax bu saalab bi di ñëw ci moom da ko ne us wala mu ne ko as wala mu dàq ko waaye yàlla joo xam ne ndeysaan loolu la Ibrahima defoon ba mu daanelee yàlla yëpp dafa jël jaasi ji daal di koy wékk ci yàlla ju ngand ji biñ ne man faala hada bi alihatina mu ne fasalu kabirahum laaj leen yàlla bu ngand bi moom moo taxaw wékkoo jaasi ji kon kay ñëpp daanu nañ ki taxaw wékkoo jaasi ji bala ñuy laaj kenn lu xew nañ la laaj allahu akbar pour lan la pour nit ñi yëngal seen xel yi xoolal àllarba passé Sénégal man dañ maa woo ba muy bëgg a dee ak ay whatsapp yu ñu ma envoyé àllarbay kare àllarbay kare kenn du sangu kenn du tukki kenn du liggéeyi kenn du te ñooñu di wax loolu yëpp doo ci dégg mu mu ne kenn du añ àllarbay kare kenn du añ doo ko dégg de du ñu àllarbay kare moom ndax di dina sangu xool xoola salte gu bon gii nga xëy suba ba ngoon léegi yow boo amoon soxna ngeen sëy ba pare wala nga am borom kër nag janaaba boobu fu ngeen ñëw xanaa doo ma ne da ngay tiim te tiim bu fekkente ne ndox am na tiim moom la olof yi naan mbaam ŋaax njàpp toj ndox amul mbaam yi dem nañ rooti nga jékki-jékki dégg mbaam yi di ŋaax ŋaax kon ñoo ngi ñibbisi ñu ne kon yow mi tiimoon sa njàpp yàqu na isa wujidal ma fal batala tayammum su fekkee ndox am na rek tiim yàqu na léegi naka la nit di waxee ne tey àllarba bi kenn du sangu kenn du tukki kenn du liñ ciy lim sax dafa bëri daanaka yow daal da ngay toog benn ruq rek croiser bara soo waxee lan la ñu ne la àllarba bi kenn du def dara waaw voilà lan la islaam wax ci loolu faamal fi kulli yawmin ma chita fa inna al ayaama kulluha lillah la tadurru wala tanfa jëf yi bis yi lundi altine talaata alarba alxamis ajjuma samedi dimanche kulluha lillah la tadurru wala tanfa yàlla mooy jëriñee yàllaa yi lore su fekkente ne dañu ne bisu alarba musiba moo ci amoon ana ban bis la musiba amul wax leen ma ko yàlla ngi wax ci suratul xaqa ba muy alak xeet wa fa amma samudu fa uhliku bi taaxiya wa amma aat fa uhliku bi riihin sarsarin aatiya saxara alayhim mata kam saba ala yaani wa maasa wa samaaniyata ayyaam ban bis kon moom la moo nekkul bis bu gaaf saba alayaal juróom-ñaari guddi juróom-ñetti bis yi nag ban la ban moo ci bokkut kon yépp am ga am gaaf ndax mbugal moomu yàlla tabaraka wa taala def na ko ci ñoom juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti bëccëg la yàlla teg mbugal moomu ci kaw waa aad ngelaw loo xam ne dafa am coow di vib di yuuxu di dajji kër yi di yëkkati gëléem yi di dóor ci suuf ñépp dee léegi nag ban bis la ñuy wax kon ne bis boobu bis la boo xam ne yàlla tabaraka wa taala mbugalu ci ay nit ban bis la ndax yàlla saba ala yàlla la wax wa samaniyata ayyaam husuma kon naka la ñuy jaglee àllarba rek ñu ne àllarba bii kenn du sëlmu kenn du sangu kenn du génn sa kër kenn du tukki kenn du fóot kenn du bale kenn du fu ñu jëm loolu fan lañ ko jëlee ban diine la ana hadis bi ndax yonente alayhi salatu wasalaam moo wax ci sahihul buxaari wala muslim wala abu daawud wala tirmise wala nisaay wala ibnu maaja ci kutubu sitta ndax yonent bi wax na fa benn hadis ne àllarba bi bi ñëwee bu leen def dara toog leen bu kenn sangu bu kenn fóot bu kenn sëlmu bu kenn soo lekkee ba pare sax bu raxasu fu ñu jëm loolu ban diine la loolu yëpp lu ko waral mooy sunu xel yi moom la ñu sànni fële topp ay caaxaan xoolal tey bu ñu xëyee suba ñu ëpp ci ñun fii sax julli ji jumaa dañuy jël ndox roose seen buntu kër ñenn ñi ci atelier yi du ñu ubbi lu ñu sotti ci atelier bi waaw ñenn ñi dañuy ñëw sax jënd mbuusu ndox daa ci guux tuuti daa di bënn mbuus mi daa di roose buntu bi buntu atelier bi oto yi balaa ñuy dem foog ñu sotti ci pono yi ndox ba mu tooy soo ne loolu la ñu ne non ndox ndox dafa sedd jàmm lay indi alma barid la budda an nuqaddimaha fi babil buyut iza stayqazna min annawmi la budda a an nasubba alma ala al abwab li anna alma barid li yakuna yawmana baridan yàlla bu muy wax firawna lan la wax ci lan laa ko alage firawna bi ko yàlla di labal lan la yàlla wax fa nabaznaahu fil yammi wa huwa mulim yàlla nee na firawna ci ndox laa ko labale kon ana ndox buy maye jàmm dugg leen fii rek fii ngeen tàmbalee gunaas jëm yëmbal ngeen xool ndax ñooñu ndox mi may na leen jàmm chaque jour ñu wax ne ndox amul lum pouvoir yàlla moo yor pouvoir bi ndox amul pouvoir ndox amul benn kàttan firawna bi ko yàlla di alak ci ndox mi fan la dooleem toll firawna bi ko yàlla di alak ci ndox mi ah fan la dooleem toll keroog ba muy génn lépp li mu am ci armée la génne kon dooleem kenn mënu ko woon natt waaye Muusa bi ko yàlla di musal ci ndox mi ban doole la amoon firawna yàlla mu ngi ko labale ci ndox ci ndox moomu yàlla labale ko ci même ndox moomu ci la yàlla musal Muusa fa alqihi fil yam jamono yooyu yàlla di wax yaayu Muusa sànnil Muusa ci ndox mi Muusa ban doole la am liir bu tooy xaat ñu ngi ko jur démb ñu def ko tey ci benn paan ci benn taabuut sànni ko ci ñi ndox mi ban doole la am kon du ndox mi mooy problème bi ndox mi fu mu nekk mbir mi lan la kon yàlla la lu tax du ñu taalal yàlla bu ñu xëyee suba ban azkar la ñu yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngal bu ñuy génn suñu bun kër boo ñëw ba ci bind sa bun kër waxal bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwata la billah nga ñëw ba ci kër gi di sotti ndox ñëw ci oto bi sotti ndox dem fa ngay liggéeyee sotti ndox fu ñu jëm am na benn année boo xam ne dañoo xëy fii nit ñi jël ay paanu ndox bi sotti ci buntu kër gi ay paan laa wax de koo wax ñu ne sëriñ bi moo ko wax nee nañ sotti ndox ay paan boobu ngeen commencé sotti paan yi ba léegi lu ngeen gis jàmm dafa am tey dégg naa Pikine lakk la la leen ko fanaanoo ah kenn mënu ko fay ba armée française moo ñëw dimbaliñ kon ana ndox mi ñuy sotti ban njëriñ lañu amal nit ñi dañuy xam yàlla nit ñi dañuy gëstu yàlla nit ñi dañuy xam seen boroom waaye lan moo leen fa yóbbu mooy seen xel waaye bu ñu tëjee xel yi waaw yor ay idée arrêté loo wax ñu ne mën na nekk soo waxee am na ku mun a naaw asamaan ñu ne mën na nekk loolu da nga ko bëgg a weddi mën na nekk am na ku mun a naan géej ñu ne mun na nekk da nga ko bëgg a weddi mun naa nekk ah abu zar bu mu gisee yàlla bi till bi di saw ci kaw yàlla bi dafa taxaw xalaat fan la mujj moom abu zar mu ne baritu min al asnaami fi l ardi kulliha xërëm yëpp bàyyi naa leen ndeke lii mënul dara loo xam ne ab till mooy ñëw taxaw saw ci kawam mënul baare boppam kon naka lay baaree keneen wa amantu billahi alladi huwa alxaalibu ixwat al iman foo ñu delloo si sunu xel al aqlu wa dawru fi tanfisil xurafaat foog ñu xam ne xel yi duñ leen tëj nit xel bu ko yàlla mayee tabaraka wa taala nit kooku dafa war a xalaat ci xel moomu yàlla may ko li anna al aqla sahih yusilu saahibu ila al imaani sahih xel mu wér moo xam ne borom day xalaat ñaata yoon la ñu yàlla di xalaat loo asamaan ba ci gëléem yi yàlla day wax ne ci suratul xaasiya afala yanzuruuna ila al ibili kayfa xuliqat xoola gëléem ni ko yàlla bindee du bind bi rek lañ la xoolal ni bopp bi boos bi tànk yi aha kay bokk na ci waaye jàngal gëléem soo ko jàngee résultat bi fu mu lay yóbbu mooy nga delluwaat gëm yàlla mooy yàlla gëléem day toog weer du naan nit ñi dañuy manqué ndox sax ay fan ay weer du ñu am lu ñu naane du ñu am lu ñu dimbali ko ñu rey gëléem génne ndox mi lu tax ndax gëléem bu fekkee mën na naan ñaari bërigo benn bi daf koy utiliser benn bi mu denc ko ba ndox manqué moo tax moom du am problème moo tax ñu tuddee ko safinatu sahra yaani afala yanzuruna ila al ibili kayfa xuliqat xool leen gëléem nu ko yàlla bindee waxuñu la rek nga taxaw nii xool ko après mu daal di jeex déedéet ay melokaanam lan moo tax yàlla di la ko xoolloo moom gëléem xoolal loo xam ne moom dong moom ma mun a jaar ci zah- sahara moo tax ñu tuddee ko safina gaal gaal gaal lañ ko tuddee safinatu sahra ndax tànk yi ni ko yàlla bindee du paan du lab ci suuf te luñ ko teg mu yóbbu ko waaye xoolal kéemtaan googu yëpp xale bu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw mën na jàpp ci buum bi wàcce ko daal ci yéeg te gëléem buñ koy rey kenn du ko rendi kéemtaan yooyu yàlla nekk moo tax yàlla di la ko xool loo loolu nag soo ko xoolee lan moo lay gis loo loolu mooy xel wa ila samaai kayfa rufiat lan asamaan ni ko yàlla yëkkatee kan moo ko téye ndax da ngeen gis ay poto ñun ñu nekk fii yëpp suñu bëggoon yee téye dara nii suñu kaw te amuñu luñ ko kalee buñ ko bàyyee nu muy def day daanu asamaan nag kan moo ko téye rafa asama bila amad yàlla moo ko yëkkati noonu yàlla di ñu xoolloo yooyu afala yanzuruna ila al ibili kayfa xuliqat wa ila alsamai kayfa rufiat wa ila aljibali kayfa nusibat wa ila al ardi kayfa sutihat xoole yàlla loolu mu lay xool loolu dafa bëgg sa xel mi di yëngatu nga xam kan mooy yàlla ba doo ko dendale kenn doo ko bokkaale ak kenn lépp looy def ci sa jaamu ci sa borom subhanahu wa taala lim la sant foog nga koy teg mbokk yi jot na Sénégal ñu delloo si xel yi waaye nit ñi daanaka dañoo abale xel yi dañ ko abale ku abale sa xel nag nax la yomb benn borom xam-xam day wax ne Sénégal dañoo tafu seen xel tafu xam nga nit bu ñu tafoo sa kalpe mën ngaa liggéeyaat nga am kalpe buñ jëlee sa xaalis mën ngaa góorgóorluwaat nga am xaalis buñ jëlee sa portable mën ngaa góorgóorlu sa portable nga amaat ko waaye buñ jëlee sa xel pare nga buñ jëlee sa xel dootoo jëriñu fal imaanu alladi yubna ala al aqli wannazri waltafkir yakunu aqwa min al iman alladi yubna ala taqlid ngëm yàlla goo xam ne dañ koo teg ci xel ngëm yàlla goo xam ne dañ koo teg ci ay gis-gis ngëm yàlla goo xam dañ koo teg ci xalaat day dëgër këng day wér waaye ngëm yàlla goo xam ne dañ koo teg ci lii laa fi fekk ko ɗum ɗo min tawi ɗo taniraɓe ko ɗum ɗo ɓe waɗanno haadi ko lacciri haa ko ɓe ñamanno jamma enen jamma ko lacciri haa ko tan hay goto waylata ɗum Ah! ɗum hoto fanuɗen ɗum ñun dal fekk nañ sunuy maam cëreg mbuum la ñuy reere guddi kër gi kenn du fi reere leneen lu dul cëreg mbuum loolu ngëm googu baaxul toppandoo boobu musiba la ngëm yàlla goo xam dañ ko teg ci xel teg ko ci xam-xam teg ko ci xalaat ngëm yàlla googu kenn lay def ay ngëm yàlla goo xam dañ ko teg ci lii laa fi fekk bu ko kenn dindi lii la lii la benn waay ndeysaan xëy na julli si na juma nee na sama papa sëriñam daf ko may lalam bi mu doon tëdd paa bi indi lal bi teg ko ci digg kër ci digg néeg bi daa di koy muur ay darab ba lal bi yëpp daj mu sotti ci parfum daan ne lal bi moom kenn dootu ci tëdd araam na ndax sëñ bi tëdd na ci ba pare kenn dootu ci tëddaat keneen ki oto oto sëriñ bi dafa jóge dëkk dem ci dëkk mu óbbu oto am oto am moo gënoon rafet ci dëkk ba mu yóbbu oto bi sëriñ bi yéeg oto bi ba pare mu pare mu dugal ko garage daan ne oto bi moom kenn dootu ci yéeg ba yowmal qiyaamati pare na yow kay dëgg-dëgg sax da nga cee waroon yéeg ndax barke bi nga am ci lal bi da nga cee waroon tëdd sax ndax boog nga am ci barke bi waaye xoolal lal boobu kenn dootu ci tëdd oto boobu kenn dootu ci yéeg xoolal loolu nar a yàqu ba kañ loolu ngay gis dof yi li ñuy def fi am xar mu ngand mu weex tal kuy ñii def ko ci kër gi xar mi kenn du ko laal ñu koy jox rakkal di ko jox ivaillant muy naan di ko jox ripaas ba xar mi xëy rek ne këndang dee ñu diri yóbbu ci àll ba ñu ne xarum sarax la kenn du ko lekk la ilaha illa allah muhammadan rasulullah loolu xel yooyu anamu xoola xaar yooyu ñuy diri di sànni ci mbalit yi naka noonu yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mu ngi ci biir dëkk bi yoo xam ne soo waxee rek ñu ne la "Oh, kenn du ko laal bul laal bul laal am na ay nag yu may gis fan yi ñuy tamambaalu ci biir dëkk bi ma ne waaw nag yi nag ngand nañ de ku ko moom ñu ne "Yuuu, ku ko laal dee nag yooyu ku ko laal dee lu muy def ci dëkk bi loo xam ne ku ko laal dee lu lu mu fi def te du benn de yu bëri la te dégg naa am na yu nekk Dakar am na yu nekk fii gàddaay soo waxee ñu ne seen borom daf koo yàq man de ku ma ko mayoon ma jël ko su ma gisoon ay mbokkam bañ may ma ko yëpp dinaa ko jël ma jaay ko wa ma hum bi daarina bihi min ahad illa bi iznillah ana yàlla mais nit ñi dañoo nangu bloqué seen xel yi kenn xelam nanguwul dem bouger pour jëm ci yàlla ayna allah ana yàlla xanaa sax lu ñu lu ñu lu ñu alku alku dégg nañ lu loxo def loxo mun na ko dindi su fekkee kooku sax dafa yàq alal jooju daf cee def dara am na ñu ko mën a dindi alal jooju tey ay milliards dañuy bàyyi mu yàqu soo waxee ñu ne ku ko laal dee ku ko laal di nga dee ku ko laalu di nga dee benn waay daa dem ci dëkk nawet mu fekk dëkk bi yëpp di bay moom mu ñëw nekk gan bëgg fu mbay mu gis fu rafet verte mu ne waaw fii nag ñu ne ko hee mbay dee ku ko laal da ngay dee ku ko musa bay dee nga xam nga loolu am na ci dëkk bi li may wax ni olof yi xam nañ ko ñiy bay ku ko laal dee mu ne leen man de bëgg naa ko ñu ne ko xoolal sawaay da ngaa dëgër bopp nag xam nga loolu lañ lay wax yow da ngaa dëgër bopp bu ñu waxee ngay gëm-gëm lu di jéem a gëm-gëm lu yàlla loolu la nit ñiy wax mu ne leen man de bu ngeen ma joxee ndigal dinaa ko bay chef mu dem ci chef de village chef de village bi ne ko sama yoon nekku ci te maa ngi la yëgal leen boo deewee kenn du la suul ci dëkk bi da ngaa dëgër bopp waa ji ne alhamdulilah waa d'accord bu ma deewee kenn du ma fi suul ñu ne ko indi sa numéro téléphone nga wax foo dëkk Dakar mu daal di ñëw indi adresse am joxe carte d'identité am ñu bind numéro téléphone bi ñu ne ko boo dee rek dañuy woo say mbokk yow kenn du la fi sax suul waa ji ne d'accord mu dem ut illëram commencé ruuj ba affaire bi jeex mu daal di ji rek daal di sibburu ñu ne ko voilà voilà fekk moom Dakar la jógee dafa gëj a liggéey ci loolu looloo ko jàpp mu ne wallahi dara daluma damaa sonn rek ñu ne ko wuu yow kay doo ngaa sibburu nga xaaral rek saa yu ñu xëyee rek ñu ne kenn dama nga toog ci wetam nga xool bu dee nga woo ñu yàlla def mu wér allahu akbar nawet bi jeex waa ji mu ëpp gerte ci dëkk ba mu ëpp gerte mu jël affaire yi jaay gaa yi waaw ah waaw sëñ bi moom waa ji moom kii de dëgër na fit ah man de li ma ci jaaxal sax moom moo fi ëpp gerte moom toolam bi daanaka dafa nangu ah fi verte la dem fi verte foo xam ne moo gën a am tooy moo taxit léegi nag ndeysaan jaay na gerteem def ci poosam ci xaalisam mu ngay ñibbi nag mu dajale waa dëkk bi nag di bayaan mu ne asalaamaaleykum gaa yi ne ko maaleykum salaam mu ne waaw yéen lu tax bayu leen fi ma fi ma kii nii gaa yi ne ko "Uu, foofu wóorul foofu ku ko bay da ngay dee mu ne yéen fi ngeen doon bay ana ñi ko doon bay ana seen i maam ñu ne ko dee nañ mu ne kon bay dee bayul dee su ngeen bayee fii di ngeen dee bu ngeen bayee feneen di ngeen dee kon bàyyi leen rek noonu la ñibbisee Dakar jënd ay gaalu moteur nekk nappkat bu mag a mag a mag a mag bàyyi leen foofu ñu koy xëccoo teeree ba ñu koy xëccoo léegi gëm nañ ko ko bay doo dee aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu din walaw kariha alkafirun ibadallah mbokk julit yi sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu daf ñu teral dafa bëgg doomu aadama mu tedd ci xel mi ko yàlla may rab soo ko tegalee lekk balaa muy am lu ko neex mu këpp ko ci suuf di ko for ak gémmiñam di ko lekk rab yépp nag gémmiñ la ñuy lekkee xoolal yow doomu aadama tey ku la tegal lekk da la indil ndoxum raxasu wala mu indi la kudd wala mu indi la paaka wala mu indi la serviette wala mu indi la lépp teg xataa sax bala ngay lekk dañ lay lalal yenn saa yi sax bal ñu yëkkatil la ko ba ci kaw ne la ñool te loolu du lekk rek soo demee di tëdd dañ lay lalal sooy war dara da ngay yéeg ci kawam xoola yàlla teral googu mu la teral ak sa xel ni ngay xalaatee léegi nag bu desee diine rek doomu aadama yi bloqué seen xel yi kenn du xalaat ne yàlla lañ war a topp kenn du xalaat ne yàlla lañ war a jaamu kenn du xalaat ne yàlla lañ war a màggal kenn du xalaat ne yàlla tabaraka wa taala moom kenn moo fi nekk koo fi dégg muy ngand ngandalu wala ñuy fëgg dënnam bisa ngi di ñëw ñu ne bàmmeelam a ngi nii bàmmeelam a ngi nii waaw ndeysaan benn sëriñ ci tukulóor yi dafa faatu ñu sang ko sang ko jullee ko suul ko biñ ko suulee ba pare ñu ñibbi kër ga ñuy def discours kenn ci ñi ko war a remplacer wala ci gan yi nga xam ne kilifa la mu ne on ngi ceerno de yehi kono ko wawno hanki ko hande o ɓuri ɗum wawde holno wawri ɗum o maayi holno wawri ɗum hunaka cheikh min assuyuh qad tufiya wajtamaa annas fi beyti wa adhaluhu fi lmagsal wa gasaluhu wa kaffanuhu wa dafanuhu wa qaama arrajul min adduyuuf wa qaala kama taalamuuna anna cheikh qad tuufiya lakin sa yajcalu maa yajcaluhu fi lxayaa kama yafaluhu fi lxayaa kayf wala ana mayit kayfa yaqumu bi amali laxyaa moom faatu na naka lay naka lay naka lay defee mbiru ku dee huwa mayit alaana huwa fi qabri allah subhanahu wa taala yaqul wa man adallu mimman yad'u min duni llah man la yastajibu lahu ila mata ila yawmi alqiyama te sax wahum an du'aikum ghafiluun bu ngeen taxawee sax di ko woo ndeysaan moo tax waa ji mu gis dof bi dafa gis benn waay bu dem ci xabru sëriñam di ko ñaan ay sëñ bi damaa bëgg a tukki damaa bëgg a dem Italie damaa bëgg a takk jabar damaa bëgg a tekki waa ji di ko xool ba ci yàgg mu ne ko sëriñ bi dafa dem Dakar mu ne yow xanaa dangaa dof yow mu nekk bàmmeelam nekk ni ñu suul ko mu ne boo gëmoon ne dañ koo suul kay doo ko ñaan soo gëmoon ne dañ koo suul noo koy ñaanee yàllaa ngi nii di dund hayyun laa yamuut yàlla mu ne wa iza saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai iza daani allahu akbar ujibu daawata daai iza daani damay wuyu rek waa ji su ne yaa rab yaa rab yaa rab ma ne ko labbayka ya abdi ñu romb yàlla ñëw di ñaan bàmmeel loolu koy dof moo koy def ko amul xel yàlla nee na maa ngi fi soo ma woowee ma wuyu la yonte yàlla Moussa dafa amoon ku ku jaamu xërëm benn waay di jaamu xërëm taxaw naan yaa sanam yaa sanam yaa sanam yaa sanam làmmiñ bi gaaw mu ne yaa samad labba yàlla ne ko labbayka ya abdi Moussa yàlla mu ne hada kaafir lam yu'min bik kaana yad'u sama sanam fa axtaa lisaana fa qaala ya samad fa qaala rabbi ya Moussa hal min samadin gayri ya Moussa hal min samadin gayri yàlla ku ko woo mu wuyu ko xool yéeféer moo ko woo mu wuyu ko kon bu ko jullit woowee musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo men mouhammad sallllahu alayhi wa sallam hutba men hannde wonno haqqille holko wawi daranade neɗɗo e duñde ɗiɗo pippiɓe ɗiɗo gueɗe ɗe ganduɗa yimɓe ina mbaɗa ɗum te haqqille jaɓani ɗum haqqille neɗɗo tabaraka wa taala allah subahanahu wa taala teddini neɗɗo o waɗanimo haqqille o teddini neɗɗo o nele e neɗɗo annabaɓe o teddini neɗɗo o nele o- o tellini defte makko e yimɓe ɓe pour yimɓe ɓe yooɓe goni yimɓe hoto ɓe nandu e kulaɗe ladde hoto ɓe nandu e jinneji hoto ɓe nandu e kaaƴe hoto ɓe nandu e leydi kamɓe ko allah subhanahu wa taala teddini ɓe waɗi ɓe yimɓe kono ɓeɗo yimɓe hande ɓe jaɓani oɗo allarba jawtuɗo yaltuɗen on nana e nder leydi ndi wiya oɗo allarba hay goto lototako oɗo allarba hay goto sulmotako oɗo allarba hay goto wuppata oɗo allarba hay goto kono ananta mukɓe wiya oɗo allarba hay goto ñamata ñamde nde kay hay goto wawa ɗum hadde ñamay yaray ko tagi en wiyani oɗo allarba en ñamata holto fawɗen oɗo allarba hay goto lototako saɗa jogui joni joom suudu ma on wondi walla deb gorko ma on wondi joni sa fini subaka holno watta a lototako a uppata comciɗi ɗo leynoɗa ɗo a fewnata oɗon allarba so ari hay goto dillata ɗum wona diine ɗum ko khurafat ko bidaji allah yamirani ala e bouhari ala e muslim ala abou dawud ala tirmisi ala hay nokku il faut artirɗen haqqillaji men wonen yimɓe wonen juulɓe ɓe annduɗa ko allah tan tabaraka wa taala ɓe rewata ko nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe ñimtinta hono no rewirtuno allah kanko nelaɗo o wi imal fi kulli yawmin ma chita fa inna al ayama kulluha lillah la tadurru wala tanfa ñalawmaji ɗi wat ko welaɗa ñalawmaji ɗi ko allah jayi ala hen ñalawma lorowo ala hen ñalawma nafowo woto sikken ñalawmaji ɗi ina nafa e hande de ko aljuma woto sikke hande kam ma ala hande ko dimanche moƴƴani hande ko ala hande ko allarba moƴƴani ñalawmaji ɗi ala hen bonɗo aɗa andi hol ñalawma bonɗo woni ñalawma bo- mo wofɗa allah e oɗon ñalawma on ñalawma moƴƴani e ma ginnaaw loolu mbokk yi bu ñu paree inchallah comme niñ ko baaxoo def am na fi ñaari mbokk yoo xam ne dañu toll diggante toll ci ay jafe-jafe ñëwoon seet sinu keroog am na benn mbokk bi ñuy leeral lu mel ni benn mbokk mu ne ñii ñëw da ngeen war a da ngeen war a leerlu maa ngi yëgal mbokk yi jullee ci jàkka ji ak di génne seen alal di dimbali mbokk yi musuñoo taxaw fii di laajal nit ndimbal lu dul xam nañ ne aajowoo na ko ñu doog koo wax nit ñi musuñu def loolu saa yi ñu taxawee fii laajal nit ndimbal ci mbokki jullit yi xam nañu kooku parce que gëstu nañ ko xam nañ ko toog nañu ak moom war nañu ay kayit wala feebar na dem na dem nañ seeti ko ba xam ko ñu doog koo def yal nañu yàlla musal ñuy laaj fi alalu jullit yi te joxuñu ko ay nit yu ko ko aajowoo yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم لا تجعلنا جبنا فندأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل wa nataraja haythu yanbaghi lana an nataqaddam اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله